abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant Yàlla ñun lay tijil kësalaadam sidi baram alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammadin wa abdallah wa ala alihi haqq qadri wa miqdaran azim asalaamaaleykum wa rahmatullah waa alsmaani yu sàkku xam-xam ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di ci jiital kanziyatul kunus gi di ci jiital aynil maarif bi muy Seydi Mawlaaya Baay Usmaan ñu koy ñaanal yàlla gudd fan bu ànd ak wér yàlla jotal ko mboolem càkkute fami ci barke Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ñu ngi koy ndokkeel ci programme bu màgg bu barkeel biñ jógee ni muy gàmmu géejawaay gi ci ndokkeel Baay Modou Gueye bi nga xam ne moo ko taxawee moom ak ay mbokki taalibeem dinañ ci ndokkeel bu baax dinañ ci ñaanal yàlla yàlla na nekk yëkkateku ñeel leen yàlla nañ ko yàgg a taxawee ànd yokkute saa su nekk ci barki Baay Usmaan waaye ñu ngi ciy ndokkeel suñu sëriñ al alimul alama di borom xam-xam bu mag muy Baay bu dem bi nga xam ne moo taxawee guddi gi sira fa sira bu jéggi siira boo xam ne yéeme na lool nga xam ne sigil na sëriñ bi sigil na Mawlaaya Baay Daraame sigil na képp ku aju ci Usmaani yu ndax feeñal na qualité topp ak Baay Usmaan dëgg-dëgg képp ku fa teew kër gi yéemu nga yàlla may ko lu jafe ci borom xam-xam muy gannaaw bi mu làmboo ko borom xam-xam yi xam oyof tabe laa biir mu nekk ku yàlla may macha allah mu mën takk te nit su ko yàlla defalee loolu rek su góorgóor la nekk borom xam-xam bàyyi bu ko yàlla may la yàlla bu ko cat jàpp jublu yàlla na fa yàgg ak jàmm yàlla yàlla sax di ko yokk yàlla na ko yàlla sàmm aar ci barki Baye Ousmane ñu ñëwaat rek góorgóorlu ci laayante biir mi ñu doon def ci faxasi salaamun bi maam Omar Gada Gada Thiam di jéggalu itam ci bépp njumte buñ ci def ak di jéggalu ci baat bu xorewul bi set bu metti moo ñu laal ñu ngi ciy jéggalu bu baax kon su ko defee tey ñu ngi tàmbalewaat xasida bi fi ñu ko yeewaloon keroog rek yaakaar naa ñu ngi leen ci ñuy wax bàyyi ne saxal nga fi ay leer teg ci mbóot yu doy waar kon tey nag ñu ngi jëlaat yeneen ñaari bayit rek incha allahu rabbi ñaan yàlla defal ñu ci tawféex boo continuer ci way ga ma maam Omar Gadaga mu ngi wax bàyyi ne maa ngi lay yalwaan yow mi doon na tiijaan may ma saami ba tam xol ma dee ci liimaan fëggule naa tibbal ma ndax ma jóg ci bekkoor rafle naa xodd kon ma baax may gaar tey loolu la ñuy xool maa ngi lay yalwaan yow mi doonu tiijaan may ma sàmmi bëtam xol ma dee ci liimaan fëggule naa tibbal ma ndax ma jóg ci bekkoor rafle naa xodd ma kon ma kon li may gaar fii nag dafa taxaw ci bunt ak taalibe buy toroxlu di ñaan waaye nga gis na tam baat bu mu utilisé na moom mi ñaan li muy ñaan amul ci benn cër ndax yalwaan la utilisé maa ngi lay yalwaan ki yalwaan nag amul benn cër ci li nga xam ne moom lay yalwaan biñ ko saraxee mu jël buñ ko saraxul mu gërëm kon moom wane na ne moom jaam la ci roon Cheikh Ibrahim nga gis tawaa dafa bu mot sëkk suufel boppam bu mot sëkk ne waaye maa ngi lay yalwaan waaye yow yow kan yow mi doon tiijaan fii mu ngi feeñal ne bàyyi mooy xalifaay Cheikhu Tidiane te fële wax na ko ne kon ma wéy la te kañ la yaa doon rabbaan muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy yarekat bu mag bi waaye tey nag wax na ko maa ngi lay maa ngi lay yalwaan yow mi doon Tidiane parce que fi mu taxaw la da ngay gis ne ci buntu wilaaya la taxaw di demande ay yokkute ci buntu wilaaya moo tax foofu Cheikhu Tidiane yi kenn du naan wala kenn du naan dala ci bëxru boobu ku dul moo tax mu ne ko maa ngi lay yalwaan yow mi doon Seexu Tijaan te nga xam ne Baay wax na ne euh, man yuhibbuni wa man yaraani fii jannatil xuldi bila buxtaani is annani xalifati Tijaani mawhibatan min Ahmad Adnaani Baay mu ngi wax ne ku ma gis wala nga bëgg ma ama janaay biel fekk deewaguloo ndax man may xalifaay Seexu Tijaan <laughs> kon Baay jël na maqaam bi fale sa waxaan na ne yaa man yuridu Tijaani musaafaatan fi bayti ba xamatul fi am mukaafatan kon Baye wax na ne moom mooy Cheikh Tidiane moo tax mu ne ko maa ngi lay jal yalwaan yow mi nga xam ne yaa doon Cheikh Tidiane la may ma saa mébétam xol maanaam lan la mébét ci xolam bi mooy ma dee ci liimaan mu ngi ñuy fàttali laaya gi wax ne yaa ayyuha allazina amanu ittaqula haqqa tuqaatihi wala tamutunna illaa wa antum muslimun yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla ragal leen yàlla dëgg-dëgg ragal ragal leen yàlla dëgg-dëgg ragal waaye nag bu leen dee duut ne nekk ngeen ay jullit kon nit ki ndeke dina dem ba nekk jullit waaye laataa muy dee mu rëkkeeku kii nag mu ngi demande bokk ci ñi nga xam ne ñoom la aaya bi mu bokk ci woy texe yi moo tax mu ne ko may ma sàmmi ba tam xol ma dee ci liimaan mu jàngal ñu la aaya boobu wax mu teg ci nag ne bàyyi fëggale naa fëggale naa mooy jeexal naa takk soo demee ba nga xam ne sàq mi fëgg na sàq nag mooy wax ji buñ bayee pare fi ñuy def mbayeef mi dund gi nga xam ne foofu lañ koy denc léegi na su demee ba fëgg maanaam mooy jeex na tal pàng na fëggale naa tibbal ma parce que li ma yoroon man ba jeex na soo ma tibbalee danaa jog ci bekkoor danaa jóg ci ñàkk waaye rafle naa xodduma mooy wodduma kon ma balli may gaar da gis ne nag fii eh, Mame Omar Gada Gada mu ngi demandé waaye mun na nekk zahir bi naam duñ ko dàq waaye nañ jéem a xool ci baatin bi fuggale naa lan tibbal ma ndax ma jog ci bekkoor maanaam ñàkk naa cër ci yàlla ñu ngi xiif yàlla ñu ngi mar yàlla xam-xam yi ñu doxaloon sayru yi ñu doxaloon consumé nañ ko ba mu jeex takk kon tibbalaat ñu ndax ñu jóg ci bekkoor parce que Baye wax na ne kooku mooy arif dëgg dëgg dëgg mooy koo xam ne dana wër ci mboolem géeju xam-xam yi day naan ba mu jeex takk waaye foo ko fekk mu ngi mel ni xaj nga xam ne soo demee ci miftaalu soli laa hadarati rasul Cheikhu Tidiane sara euh, Cheikh Hassan Dem radiyallahu anhu sara waxu Cheikhu Tidiane bi mu waxoon ne am na fukki jikko yu nekk ci xaj te daf ko niroo rek wëlli yàlla bi benn bi mooy xaj moom foo ko gis rek mu ngi yalxat di wane ne dafa mar te dafa xiif moom kooku mooy dëgg-dëgg suuf yank bi moom du doyal ci xam-xam waxtu bu lekkee benn ngir ci xam-xam wala mu jot benn naan ci xam-xam rek mu ngi mébét mu ngi yàkkamtee jot li nekkaat ci kanamam kon fëgg leen a tibbal ma ndax ma jóg ci bekkoor mooy ñàkk nañ ay ay ay wila cër si wilaaya ay sayru ci yàlla tibbal ñu ndax ñu jóg ci bekkoor ndax loolu ay xeetu lekk la ay xeetu naan la waxte ne bàyyi moo ñox ne suñ bëggee dugg àjjana te àjjana am na am na ay ay lekk ak ay naan fiyaa aynun jaariya fiyaa sururun marfuwa wa ba na aaya bi jeexee yaa ngi dégg mu ne ko rafle naa wadduma kon ma balli may gaar gaar nag euh, baatu bu wolof la boo xam ne bari na du muy firi fii nag zikarkat yu bari suñ fa ñëwee dañ naan fëggale naa tibbal ma ndax ma jóg ci bekkoor rafle naa wadduma kon ma bay li may gaar am na ñuy wax bay waaye euh, jàpp ne loolu loolu njuumte la baatu gaar euh, bari na lu muy firi ci wolof gaar dina firi loo xam ne dafa présenté wu daf la dogaan dafa ñëw sa kanam mën na nekk gàllankoor mun na nekk bànneex maanaam mën naa wax Baye Modou Gueye man de même pare woon naa pour ñëw ci sa programme bi waaye bi ma ñemee bay jóg rek am li ma gaar li ma gaar noonu nag mën na nekk mbégte mën na nekk safaan maanaam am na loo xam ne feeñu na ma lan moo la gaar ma ne ah man de eh, sëriñ bi moo ma seet si kon loolu gaar la li la gaar nag mun na nekk gàllankoor mun nañ ko firee gàllankoor mooy loo xam ne gàllankoor na la gàllanu na sa kanam ba tax munoo dem ci leneen bi kon loolu gaar la dina firi gaar ak gaar boo xam ne olof daf ko ab mooy fi nga xam ne terrain yi fa la saxaar bi di teer gannaaw loolu olof amul ko créé wut ko te soo demee ci ni langue di développé euh, euh, yoonal nañ ci làkk mu àbb beneen moo ci beneen làkk utiliser ko loolu mën naa bari na ci làkk yëpp soo demee da nga koy fekk ci daanaka ci làkk yëpp gaar mooy fi nga xam ne fa la saxaar di teer waaye gaar bii moom Omar Gadaga Thiam wax nag mooy euh, gaar goo xam ne eh, ki rafle moo koy def gaar mooy nga am benn yëre yëre bi di xotteeku nga koy ñawaat ñaw boobu nga koy ñaw loolu mooy gaar li ñuy wax dabba daaxi loolu mooy gaar moo tax mu ne ko rafle naa ma kon ma bal li may gaar kon ma bàyyi li may jàpp di ñaw di ñawaat suma yëre bi may topp di ko ñaw di ko ñawaat kon dinaa ko bàyyi ak gaar boo xam ne comme niñ ko waxee rek mooy mooy présenté parce que yàlla léeg-léeg waxoon na malaaka yi dem leen gaaral yoonoon yonent yàlla Ibrahima seen ndimbal maanaam dem leen présenté ko ba tey loolu lay firi gaar bi mooy firi nga am benn yëre yaa ngi dégg nga rafle am benn yëre waxtu bu nekk muy ñaw muy muy xoteeku nga koy ñawaat muy xoteeku nga koy ñawaat loolu mooy gaar gannaaw li ma ci yëre bëriwul na mu ne bàyyi rafle naa wadduma su ma joxee yëre yu bëri kon du ma talati sax yëre yi màgget yi ba nekk di ko gaar loolu nag dangay gis ne ci xam lay waxee da gis ne ci xam-xam lay waxe bari na ñoo xam ne suma maas gi nga xam ne dañoo fëggale te wax dëgg ñu ngi ñaan sëriñ bi Mawlaya Baye Ousmane mu tibbal ñu ndax ñu jóg ci bekkoor gi ñu nekk xiif nañ yàlla mar nañ yàlla eh, waxtu bu nekk ñu ngi koy demandé ñu koy ñaan yaa ngi gis waaye li ñuy jot lu lu néew la kon ñun ñi ay ay ay miskin lañ ñun ay lañ kon fuggale nañ ñu ngi ñaan sëriñ bi tibbal ñu moom mi nga xam ne moom dafa woomle euh, mu ne ko nag rafle naa xodduma kon ma bali may gaar bari na nag ci eh, ñi ñuy wooyee borom xam-xam ñoo xam ne ci gaar rek lañ dëkk léeg-léeg nga gis ay yenn muqaddam yoo xam ne daanaka dafay dem ba taalibe yi sax dañ leen koy xamee ñiy dox ci féedu bi dañ leen koy xamee dañ naan diw sàngam ne moom daanaka benn waxtaan rek la am benn waxtaan rek la am dem loolu lay wax xanaa bu ci yokk tuuti rek la ci yokk waaye fu mu dem rek loolu lay wax da nga koy gis si benn muqaddam bu jóg tournée sax daanaka tournée bi fu mu dem benn waxtaan rek lay def kooku dafa rafle moo tax waxtu bu nekk benn yëre boobu la am muy gaar rek di xool fu xotteeku muy ñawaat muy xool fu muy ñawaat nga xam ne euh, toujours fu mu taxaw rek li mokkal ci aaya rek juróomi aaya yu mu am ak juróomi hadis yu am ak ci ay baytu Cheikh Ibrahim loolu lay bëgg a rey nit ñi waxtaanam toujours benn mbir mi rek ci lay nekk di déroulé di tourné di tourné di tourné kooku ku rafet la ci dimanche gi ci loolu lañ nekk yal na yàlla ñu ba jëlee ci loolu moo tax maam Omar Gadaga mu gi ñaan baay baay mi nga xam ne nag moom moo wax ne ana xaasimul mahru fi kulli hadarati moom mooy kii séddaleel borom bi subhanahu wa taala ci mboolem xadara yi kon kii su demandé bàyyi tibbal ko dëgg-dëgg def na lu ko war nga xam ne bàyyi loolu sikk sàkk nekkul ci ne moom moo ko amee moom mooy joxe mbir mi comme nu yonent bi nekkee xaasim Cheikhu Tidiane wax ñu ne wa kullu ma faadat wa barazat min saatil aliya talaxat ha haqiqatu muhammadiya ba nu ñu àggee ci moom wax ne zaati wa min nii talaxat ha zaati wa min nii yatafarriqu ila jamiil xalqi foofu Cheikh Tidiane yi moo ko waxoon kon bàyyi su doon ne Cheikhu Tidiane amul sikk ne moom mooy seddale moo tax waa ji xool ko ne ko yaa nuxbatul ulama kanzul masakini cheikhul masayix fi di fil islami wa diini dama ci soxla mooy kanzul masakini waaw kanzul masakini yow mi nga xam ne yaay ndàmbak way ñàkk ñi way ñàkk ñooñu nag mooy ñi ñàkk cër ci yàlla mooy ñi rafle ci yàlla moo tax waa ji ne ko fëggale naa tibbal ma kon ma jóg ci bekkoor rafle naa ma kon ma bal li may gaar kon ñu ngi yeewal foofu di jéggalu ci bépp njumte ak yàq-yàq ñaan yàlla defal ñu tawfeex tey ak tey siir ci barki basman allahumma salli ala sayyidina muhammadin haqqa qadarihi wa miqdaarihi al-aziim yow daa xarit sa xol ma yi ma lay digal sa nga si ka saraxe mooy li lay korel bul tay bul xaate bul de xaajale ku ci yet paxem te bul de seenale jógal ci yetti waxtu lew yaa sa xale ngay balu tey màgga ci ñaame mébéeg jaam jaamu leen seen borom moom moo de moom at borom doon morom te mooy borom ku doon morom mooy borom duñ ko habibi suma borom moo nu amal moo munu gënal moo nuy defal kanjaamu kii mooy sunu borom rabbul bariya teefi ne mooy buuri buuri mooy borom yow sa xarit jeexal ñii kii bul geesu kenn ku duul kii moo sunu borom moo mat borom ci sa taar yu rëy yi ren gëlëm moo nu mandal benn wedeen ñu jooy di jeex naan sunu borom xëy di borom cey di borom sëriñ bi mooy bunta borom màggal ko mooy bunta borom teral ko mooy bunta borom borom bi mooy ngën ji borom nan tuub te màggal sun borom de waadu naan te ngeen borom Ibrahima ñu wax li lee ci tay ba delwul may lee yow soo buggee ngeen ji tele nan saa bëgga xam sun borom bakkan bi man naa lay digal yow saa xari lay mun digal baneex bi mooy li lay dugal ci yoonu sa njab sa borom raw bakkan ñoo doon xuloo abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez sur notre chaîne Dahiratoul war ngay sant Yàlla ñun lay digil gëstu loo si di baram